ñi jëkk gëm te duñu yawut ñu ngi jukkee nettali bi ci téere jëf ya saar fukk saa yu ngeen déggee joololi bi taxaw leen xalaat te jéem tontu ci laaj bi gannaaw loolu mën ngeen wéy ci seen déglu nanu bamtu nettali bi weesu benn lan la sol doon defi bi dajee ak borom bi yeesu sool dafa doon dem damas ngir jàppi taalibe yeesu yi dafa leen bëggoona a indi yerusalem tëj leen kaso ñaar lan moo dal sool bi mu dajee ak borom bi yéesu dafa jekki ak leer asamaan dal ci kawam mu daanu ci suuf yéesu feeñu ko gannaaw loolu mënatul gis ñett lan la borom bi yéesu wax anañas ci mbirum sool dafa kone ne tànn na sool ngir mu seddal ko ci yawut yi ci ñi dul ak ci buur yi. ñeent lan la sool def gannaaw bi mu delloo di gis. jàngal na yawut yi ci damas ci mbirum yéesu won na leen ay firnde ci tere kolere gu jëkk gi ne yéesu mooy doomu yàlla.